Chami daal di nuyu naa la ziar naa la. ñu ngi ziar bu baax a baax a baax ñu ngi ziar ñëpp di ziar waa Dakaractu euh, di leen bëggee bu baax ci bis bi tedd bi di leen ci nuyu di ci nuyu waa adduna bi yëpp di ci nuyu euh, mboolem jullit ci waa kër Cheikh Béthio Maam Bam bi ak jëfe ndigal gis nañu ndigal li kat jëfe gi ndam li leer na àddina waaw waaw lii moom <clears throat> day wane ndigal rek fi mu jëmee ak taalibe ndax dama wax léegi ne kenn deful dara <clears throat> dañoo woo rek ci ak cant Serigne Touba ma defi woon ma wuti woon ndamam la ba suñu boroom jox ko moo nu woo ne ñu ñëw leen sant ma yàlla kon kenn du ci dara ak ndigalu suñu borom moo ko yóbbu woon te da koo sàkku ji woon ngir ñun ndax ku ne jaamu naa yàlla juróom-ñaar fukki junni at te sàkk gu ñu maam aadama kooku jàpp naa ne kenn xamul lu mu doon ndax moo ne du ma jit du ma jinni du ma nit du malaayika kon kooku boppam taxul woon muy wax ndax wax na ko chaque génération aura la certitude que je suis venu pour elle kon loolu bu koy wax doomi aadama yii la ko sàkku jul woon kon bis bi tey bu wootee ni nañu ma sant ya nañu ma sant yàlla li ko tàmbalee ci ginaar ba ci gileem xeebul ginaar waaye yéemul gileem bu kenn ne damaa rey ginaar bokkuma ci màggal gi wala jëfewuma ndigal gi wala ngay rey mil nag junni nag ba tax nga ne maa def màggal ki Sëriñ Tuubaa ko jëfal boppam dañu cee woo ci cantam gi ginnaaw bi yàlla waxee ci alquran yaxmalu aala daawuda shukran wa xalilun min hibaadiya shakur wax ne ñu néew ñoo may sant ci jaam ñi te digle cant googu wax ne la in shakartum la azidannakum ku sant ma dolli la waaye daf caa teg leneen ci aay bi ne waaye wala in kafartumoo in azabi la sa sadidun waaye ku ma santul man yàlla de nanga xam ne ay mbugal yu tar ëllëg ñeel na la kon woote gii mun woote ci cantam gii nga xam ne moom lañu woo ci cantu boppam gi nga xam ne ku cantoon benn am benn ci ñun cantuk Serigne Touba gi promotion lay doon ci yow ndax la mu jëf la kenn jëful fa mu jaar la kenn jaarul kon bu nu yàlla dimbalee mu boorañ ci dugal ñu ci ba nga xam ni buñ tuddee waa kër Cheikh Béthio Thioune fii ba Asie ak Europe xel yëpp dem ci màggaluk Touba bu màggaluk Touba jubsee xel yëpp dem ci njabootu sëñ Béthio mënul def loolu sante ko ndax ndimbal la waaw. Seydina euh, Savonaas mi daal di ku ne xam ne ni cantakoon nga waaye défenseur nga ci yoonu murit am fan yii benn waa ji ñuy wax Moussa Camara nekk nekk Europe di def ay live sur Facebook ak sur YouTube di wax lu yéeme ci sëriñ bi rawatina ci yoonu murit barki dem def na vidéo boo xam sax dem na ba dàkkante léegi sëriñ Mountakha ak Père waaw dem na banaan naan euh, murid yi bu ñu nee sëriñ bi dafa leen dugal àjjana ak yu mel noonu. te nga bokk ci jàmbaar yi yoonu murid rawatina ci ndawi sëriñ Tuubaa yi. waaw loolu moom man damaa nekkoon euh, ca daara sëñ Bassirou Cissé bu njaareem boobu sëñ Mountakha nekkagul xalif général des mourides yi ñu ko tudde tey sëñ Mountakha jaamu yàllaam nga daanaka jot nga sax ci léppoon di ko def jaamu yàlla gu far ko ma sa xamee man ci julli ci woor ci melokaanam wii xasida ci nii mu mel bu dul woon sëtub Serigne Touba nga xam ne Serigne Touba moo ne wahab lanaa zurriyatan tudimu alhamala alhamala saali yaa xadim ak lam leen ñaanal lépp ñoom sëtam yi ba ku fi toog tey doon ku ko mate ku mu wóor ku ñu wóor ni moom sëñ moom jëmmi Serigne Touba bee ko fi teg bu yemoon ci magum lislaam rek day raw képp ku meloon ni moom waxuma raak nag mu doon sëtub ki nga xam ne moo nu def nii nu mel ñun ñi nga xam ne sax ay table ay taalibe simple lanu ba kenn mënuñoo xeeb kon kooku ko waxal leneen sànku rek lañ lay lañ ci jàpp sëñ tubaa nag euh, mënuñoo garantil àjjana loolu ku ko wax di ab murit man damay jàpp ne euh, ñu ñun sëñ tubaa lañ yaakaar yaakaaroon suñu bopp ndax sëñ tubaa danoo woo ci jàmmu yàlla lañu woo sëriñ Saaliw ba mu toogee ci xalifa gi li njëkk wax mooy lu dul lislaam aw ci defar aw ma ci yàq doonu ma ci dara loolu la loolu la déclaré képp ku ne xam na ne sëriñ Saaliw bu ñuy woote lislaam ci lislaam di deflu sos ay daara tabax ay daara jël ay junni junni nit ñu mokkal alxuraan bind kaamil xam seen diine li ci sëriñ Saliou def jàpp ne nit mës na ko def Serigne Saliou moomu ñun ñi ko gëm te gëm Serigne Touba rek melal xaq yi nga xam ne Serigne Touba bind na ko wax na ne ku ko teg bët dem àjjana Cheikh Béthio mii sunu waajur Serigne saali wax na ko ne ku la gis dem àjjana ku la xam dem àjjana wax ko ne ku jébbalu ci yow am na ngërëmal yàlla mooy la yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom waxoon ko ca aaya ba ca Hudaybiya inna lazina yubayi'unaka innama yubayi'una laaha yadullaahi fawqa aydiihim faman nakasa fa innamaa yankusu ala nafsihi wa man awfaa bimaa ahada alayhi laaha fasanuuti ajran aziiman te ngërëmal yàlla ku ko am am nga kattanu ëllëg ñoo xamne sawara yayon na leen nga ayu ci juróom-ñaar fukki junniy nit a yóbbu leen aljana a ah, lolou ko am ngeureumal yalla am nako serigne touba wax na ne sama bis sayri hajjin wa fil hajri wal yumni wa fi kulli sar wax ni kuko def am nga yolu aj makka ak umra ak jihad ñun ñu sañse ba jek ñew tok di lekki ndawal di di di sañse di di nekk ci bànneex bi ñu nekkee di ko sant am yool wu tol noonu kon kooku ku ko xamul ajjanaa gën a tuuti ci lim ñu dëkk sëñ Béthio suñu sëriñ moo nu xamal ne gis yàlla dàq àjjana Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne moo nu xamal yoon wi moo am xubbu saat muy bëgg jëm bëgg sëriñ tubaa toppee ko àjjana a nekkul ragal safara la ko toppe ba sëriñ Touba rëddee ne rëdd bi de ku ko jéggi boobu ma ngay jàngale ku ko jéggi dem sawara Cheikh ibrahima daa ñëw bërëngu barangu ci bërëngu ca rëdd wa mu far Serigne Touba ne ko yow xana xamoo lima waxon ci ca rëdd yi mu ne ko man Mbàkke dama wutul aljana dama rawul dama ragalu safar man sa jëm ji lawut kon ku ne xam na ne aduna bi rek passeport yi ñi wax nga xam ne ku ci am bu vierge bu sénégalais bu rose bi boo amul visa mëno tukki passeport diplomatique bi président bi di def te ñëpp di ko wut. Ah, ñang ci bindu bind nos affaires nos ministres des affaires étrangères ak nangam ak nangam requérons des offices et ministères nangam ak nangam de laisser librement passer à monsieur diou diou et de et et, de et de l'aider en en cas de besoin te loolu ay tubaab a ko bind. Serigne Touba a liggéeyal Yalla, ni mu ko liggéeyalee ba wax ni. la yalla sañ ci nguuram ga la sañ ci nguuram ga suñu borom limu am julli gi ni julli ak wor gi ni wor ak natt asaka gi ñuy natt ga wañi ko dara yok ko dara reconnaissance rek la teewul Serigne Touba sëñ mot de mii nekkoon njaareem gën a mokkal ñëpp alxuraan li wax wa njaareem ngui koy degg ñebo nang koy degg ñew ba Serigne Touba ne ko sa julli sama julli ak sama wor yi ak sama nata asaka yi jël na lepp jox lako adiyé Sëriñ woo mag ñi ne leen xam ngeen mët demee li mu wax mooy lañ ci man ñu ne ko déedéet Mbàkke mu ne mooy ku yor ab koogu ndox ñëw fekk borom géej nga ne ko sama sa kook gi ak sama ak sa géej gi damaa bëgg ñu boole ko bokk nee na borom géej gi nangul ko ko nee na waxu mët dem gi noonu la mel ci man kon ku xamul wutil xam-xam fastaxiroo bi hifsi wa tilaawa waa dina arrêté bu arrêté wul mais moo ko ndax ndax yoon wi moom fi ne ab yar la yor boo xam ne yar wi dóor sax doo ko doo ko doo ko gis waaw yar bu invisible boo xam ne doo ko gis Serigne tubaa ku ne xam ne ne waa jooju xaw ma ku mu doon waaye kooku tekki wut amul kattan ñi ko jëloon yóbbu juróom at juróom weer ak teg ba mu ñibbisi ba xéewal yii ñu ci am yëpp daje ci tey ku ne xam na ne kooku day eh, ku ko dëkk sunu borom ngay dëkk jërëjëf Thioune jërëjëf